ministre bi xamal nañu ne bu yàlla defee jàmm ba lépp jeex ndax fi mu nekk priorité bi mooy lan nañuy def ba feebar bi ñu xeex ko mu jóge fi parce que balaa nga ne naam nekk fa kon wér-gi-yaram mooy priorité mënuñoo wax ci date tant que feebar bi jàllut mais rassuré nañu ne bu jeexee ak jàmm dinañu daje ak moom ak CNG ñu xool li gën ci promoteur yi parce que baamtuwaat na ko ne na promoteur mooy li gën a am solo ci sport bi parce que moom kese mooy jël alalam di ko def te gis nañu ne ñu ngi jël seen alal di ko joxe te amatuñu lañ ci daan xaar kon nañu fexe nu ñu leen dimbalee boo nga xam ne même texte CNG yi dinañu fexe noo xam ne dinañ bokkaat waxtaan trouver ay solution ba nga xam ne dinañu mën a protéger promoteurs yi ci li muy def. xam nga promoteur lu muy def rek lam ji jëpp la koy defal parce que promoteur bu amul mbër du promoteur bu amut écurie du am kon promoteur moo nekk au début nekk à la fin de lépp kon bu ñu nee promoteur englobé nañu ñëpp bàyyiwuñu ñëpp kon promoteur yeeg ñëpp rek tous les acteurs de la lutte kon ñoo moom lépp daal génnewuñu ci kenn